الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam man seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall di leen dalal ci sunu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi ni ma koy faral di defee saa su nekk dañuy ubbi téere bu sell bi nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom jox ñu jàng ci ngir mu doon yokkute ci ñun ñépp yàlla sunu boroom daf ñu xamal boppam ci téereem bu sell bi jàngal ñu jox ñu ko ngir ñu mën a xam ci yan anam lañ koy jaamoo xam fii nga xam ne lañu nekk muy ci kaw suuf ban dund lañ fi mën a dund dund goo xam ne bu ëllëgee bu ñu delloo ci moom danañu dalal ci bërëb bu sell ba nga xam ne ñi ko déggaloon la fay dalal yàlla sunu boroom dafa ñuy wax ne kàddoom gu sell gi dafa ñuy yokk kàddu gi dafa ñuy yee kàddu gi dafa ñuy yedd kàddu gi dafa ñuy jubbanti te kàddu gi dafa ñuy barkeel moo tax képp koo xam ne yaa ngi jàng téere bu sell bi di biibal bi kon na nga jàpp ne yàlla sunu boroom dana la won dana la jàngal yàlla sunu boroom dana la barkeel kon ñu ubbi téere bu sell bi xool ci xaaj bi ñu dippee kóllëre gu bees gi ci injiil xool ci xaaj bi nga xam ne moom lañu jagleel Matthieu ci aaya ñaar fukk ak ñaar saar fanweer ak juróom ñett ba saar fanweer ak juróom ñeent Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist nekkoon fi ñuy wax Yerusalem doon fa jàngale te Yerusalem jamono yooyu yahud yi tabaxoon nañ fa benn kër goo xam ne fa lañ daan jaamoo palaas boo xam ne fa lañ daan jaamoo tabaxaloon nañ fa yàlla kër goo xam ne kër gu rëyoon la kër gu rafetoon la te kër googu moo doon kër gi nga xam ne ñoom ñépp fa lañ daan daje ngir def li nga xam ne moom lañu war a def seen digganteeg yàlla sunu boroom Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist daan faral di ñëw ci kër googu di fa dugg di fa jàngale di fa dugg di waxtaan ak nit ñi di fa dugg di yee nit ñi di leen yedd ak di leen wax li nga xam ne moom la yàlla namm ci ñoom moom la yàlla xaar ci ñoom Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist nag amoon fukki taalibe ak ñaar bés ñu ñëw dugg ci kër gi wante dañuy xam ne palaasu jaamukaay boobu dafa nekkoon place bu rafet place bu yànj place boo xam ne tàmbali nañ ko woon ci jamonoy Musa ba ko yàlla waxee Musa dafa ne ko place boobu ca njalbeen ab xayma lay nekk ñu defaroon xayma bani Israël ba ñu nekkee ca manding ba génn ca loxoy Firawna dañ ko defaroon ab xayma boo xam ne bi ñu ñëwee bu ñuy tukki ba yegg si war a toog benn place dañuy jël xayma boobu moom la ñuy ñëkk a samp buñ ko sampee ba pare ñu tàmbali ñoom ku ci nekk jël sa xayma ñu wër place boobu wante xayma boobu moo daan nekk ci diggu dëkk ba nga xam ne foo mënta jóge rek boo yegsee dangay dal ci place boobu ba loolu weesoo yàlla sunu boroom ne Daawuda bés dana am koo xam ne dana judd ci yow kooku moom moo may tabaxal kër muy Suleymaan Suleymaan tabax kër gi nga xam ne mooy kër gi ñëkk tabax ko tabax ko ci ay at tabax ko ni ko yàlla sunu borom waxee woon Musa ndaxte dafa ne Musa xayma bii ngeen xam ne moom ngeen may defaral te nga xam ne fa ngeen nii dugg di ma jaamu na ngeen ko defee ni mu leen ko waxee bu leen ci teggi dara ba Suleymaan ñëwee mu defee ko na ko yàlla sunu borom waxee kër googu nag moo nekkoon ba jamonoy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla sunu borom li ñu wax ci injil ci xaaj bi ñu jagleel Matthieu ci aaya ñaar fukk ak ñaar saar fanweer ak juróom ñaar ba saar fanweer ak juróom ñeent nee na ba yeesu waxee ba noppi mu génn ca kër yàlla ga dem noonu ay taalibeem ñëw ci moom ngir won ko tabaxu kër yàlla gi ni mu yànjee waaye mu tontu leen ne du gis ngeen yi yépp ci dëgg maa ngi leen koy wax lii lépp dana daanu ba doj dootul des ci kaw doj loolu la leen wax mu ne leen kër gi ngeen di gis ni muy rafet ni muy rafet bés dana daanu ba nga xam ne doj dootul tegu ci kaw doj noonu mu leen ko waxee bi ñu demee ba at bi nga xam ne moom lañ naan atu juróom-ñaar fukk bi ñu yeggee ci at boobu waa Rome yónnee seeni soldaar foofu ci Yerusalem mu am benn général bu ñuy wax Titus mu jiite leen ñëw song waa Yerusalem taal dëkk ba yàq tabax goog nga xam ne moom lañu tabaxoon te tabax googu dafa bari woon wurus ci biir léegi ba tabax ba lakkee wurus bi lakk bi dem ba nga xam ne metti na wurus bi tàmbali di seey ba dugg ci birig yi dugg ci miir yi seey ci biir miir yi soldaar yi tàmbali nag di toj miir yi di teggi birig ci kaw birig ngir mën a jël wurus woowu kon ñu gis ne na ko Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist waxee woon noonu la amee wante yemul foofu mu leen di wax ci saar fanweer ak juróom-ñaar ba ci saar fanweer ak juróom-ñeent mu leen di wax bi mu jógee ci loolu mu leen di wax ci mujjug jamono ne leen maa ngi leen di jox ay firnde déglu leen firnde bi ma leen di jox ni bésu nooyin ya woon noonu lay mel bu doomu nit ki di ñëw maanaam moom Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist buy dellu jëmmi jamono nee na ndaxte ca bésu bésu mbënd ma nit ñaa ngi doon lekk te di naan góor yi di doon takk ay jabar tey maye seeni doom ba bésu nooyin ba mu duggee ca gaal ga xalaatuñu woon dara ba keroog ndoxum mbënd ma di dikk yóbbaale leen ñoom ñépp nee na la amoon ca bésub nooyin moom mooy amaat ca jëmmu jamono bu ñu demee ba nga xam ne àddinaa ngi tukki te moom Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist dana dellu siwaat ci àdduna nee na firnde bi ma leen di jox misaal bi ma leen di mën a jox mooy li xewoon ci jamonoy nooyin dana xewaat nee na nit ñi dana nekk ci li leen neex góor ñi di takk ay soxna di maye seeni doom ba bés ba nga xam ne yàlla àppaloon na ko nooyin dugg ca gaal ga yàlla tëj bunt ba mbënd ma tàmbali taw mi wàcc seen kaw mbir mi bett leen nee na bu àdduna di tukki mbër mi noonu lay melaat jamonoy nooyin nag la nga xam ne yàlla sunu boroom waxoon na ko ci jamonoy nooyin ndaxte yàlla dafa saytu jamonoy nooyin xool jamonoy nooyin xool ni nit doon dundee ci àdduna yàlla sunu boroom saytu ci njalbeen ga bu ñu xoolee ci njalbeen ga ci aaya juróom benn ci saar juróom bi yàlla saytoo àddina lii la wax aji sax ji dafa gis ne mbonum nit màgg na lool ci biir àddina te fu mu mën a toll lu bon rekk lay xent ci xolam noonu aji sax ji am tiis ci xolam ba mititlu li mu doon sàkkee nit ci kaw suuf aji sax ji daldi ne dinaa far ci kaw suuf doomu aadama yi ma sàkk nit ak jur luy raam ak luy naaw ndax mititlu naa li ma leen doon sàkkee waaye fekk na aji sax ji xool nooyin bëtu yërmande yàlla sunu boroom dañuy wax ne moom aji sax ji dafa xool àddina ci jamonoy nooyin saytu àddina gis ne mbon jéggi na dayoo gis ne nit saa yu yeewoo rekk xelam yépp mi ngi xent lu bon noonu mu dogal ne dana far àddina dina far adina mu ne nooyin jógal nga defar gaal googu nooyin jóg di defar gaal gi yàlla sunu borom wax ak nit ñi jaarale ko ci làmmiñu nooyin nit ñi bañ a déglu ne kii li muy wax kat nekkul nit ñi tàmbali di xalaat ci téeméeri at ñaar téeméeri at junni at fukki junni at bu àddina demee nii dana demee nii dana demee nale dana demee nii dana demee nale nooyi na leen déedéet yàlla kat nee na ma am na àpp goo xam ne àppal na ko àddina bu fa yegsee dana far àddina seydina isa almasi bi yeesu kirist ne mujjug jamono noonu lay demee nee na nit ñi dana nekk ci li leen neex dana topp li ñu bëgg ba ku leen ni wax lu jëm ci àdduna buy tukki dañ naan kii kat ay lépp lay wax kii kat li muy wax tegu ko fenn monte de kàddu gi leer na kàddu gi leer na seydina isa almasi bi yeesu kirist dafa ne ay taalibeem gis ngeen tamagu rafet gi ngeen di gis ñu ne ko waaw mun leen bés dana am doj du tegu ci kaw doj ci tabax bii ngeen di gis tabax bii danañ ko daaneel atum juróom-ñaar fukk général romain biñ naan titus dugg yerusalem ni ko seydina isa almasi bi yeesu kirist waxee mu toj kërug yàlla goog nga xam ne dañ ko tabaxoon di fa jaamu ni ko seydina isa almasi bi waxee woon mu doon mbetteel ci ñoom ñépp jamonoy nooyin yàlla ne nit ñaa ngi ci li leen neex ku nepp ku nekk yaa ngi topp li nga bëgg ñépp dëddu nañ ma rax ci dolli nag ñu yaakaar ne àddina noonu lay wéyee da ngay dund nu mu la neexee bés nga faatu jeex na keneen ñëw bés mu faatu jeex na yàlla ne déedéet danaa leen bett ndaxte dogal naa ne kat yéen ñii li ngeen di def jéggi na dayoo te man yàlla am naa tiis cax maa ngi naqarlu lu ma leen doon bindee ndaxte yéen a may tëkku dummóoyu ngeen ma dëkk ngeen ma moo tax danaa leen ko won yeesu nag ne xool leen misaal gaa ngi noonu li xewoon ci jamonoy nooyin dana xewaat te yàllaa ngi ñuy wax ci kàddoom ne dafa ñu jox kàddu gi ngir mu yee ñu yeddu ñu kon yàllaa ngi ñuy yedd foofu li nga xam ne kat daloon na ci jamonoy nooyin moytu leen ba du leen dal dellu si leen waat ci man dellu si leen waat ci man bu leen may tudd ci seen làmmiñ rek wante def leen ma ci seen xol dund leen dund bi ma bëgg dee leen tuub seeni bàkkaar dee leen dëkk ci lu rafet dee leen ma déggal yàllaa ngi ñuy yedd nee na kàddu gi dama leen ko jox ngir yedd leen dama leen ko jox ngir jubbanti leen dama leen ko jox ngir xelal leen yàlla ne ñu am leen xel ndaxte li amoon jamonoy nooyin ba léegi ba léegi mi ngi fi ñu koy waxtaanee kon li daloon nit ñi ca jamonoy nooyin bu mu leen dal ndaxte am nañu firnde yàlla tukkil na àddina ñeen fukki guddi ak ñeen fukki bëccëg muy wàccee ndox ba nga xam ne luy dund nekkatul ci kaw àddina bu weesoo nooyin ak doomam yi ak mala yamu dugaloon ci gaal ga ak seeni soxna amul leneen loo xam ne dund na ci kaw àddina ni ko yàlla sunu boroom waxee noonu la ko defee tey jii nag mu ñuy fàttali na kat ah daf leen ndànk la amoon ca jamonoy nooyin moom dana amaat te dañuy wax naan képp ku dul fàttaliku démb rek dangay nekk saa su nekk ci njuumte ndaxte démb daf ñu war a jàngal tey jii dañuy war a fàttaliku démb ngir li nga xam ne moo doon juumte démb ñu moytu ko tey jii ñu nekk moo tax yàlla ne ah sama kàddu gu sell gii de dama leen ko jox ngir mu yedd leen mu yee leen te yàllaa ngi ñuy yedd naan ñu kat li xewoon jamonoy nooyin dana xewaat de kon delloo si leen xel yi te ngeen delloo si ci man yàlla saytu àdduna gis na kat saa su nit yeewoo jaamam yi mu sàkk seen xel du xent dara dara dara lu dul lu bon ñu nangu ko ak ñu ñàkk ko nangu lu bon moo ëpp lu baax ci biir àdduna lu bon moo ëpp fuuf lu baax ci biir àdduna jëf yu bon moo ëpp fuuf jëf yu baax ci biir àdduna dem nañ ba nga xam ne li bon lépp dagalal nañ ko dem nañ ba nga xam ne lépp loo xam ne yàlla daf ko tere tey jii ñu ngi koy daganal lépp loo xam ne yàlla nee na bul ko def ñi ngi ci dëkk di ko def dem ba nga xam ne sax ñi ngi koy jàngal sunuy doom sunuy doom di ko jàngal sunuy sët sunuy sët di ko jàngal sunuy sët yi sëtaat te yàlla nee na moytu leen kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaji waxtaan wi
Alleluia. Alleluia. الإله قدير يملك. Alleluia. Alleluia. الإله القدير يملك. Alleluia.
kon mbokki auditeurs yi yal na xel yi dellu si ba li daloon nit ñi ci jamono yu nooyin bañ ñu dal yàlla sunu boroom di ñu indil beneen jamono itam di ñu ko wax bi mu jëlee Musa ba Musa liggéey li mu war a liggéey ba wàcc liggéey Josué moo ko wuutu Josué liggéey li mu war a liggéey ba wàcc liggéey jamono yooyu nag mooy jamono yi ci tegu mooy jamono ñi ñu tuddee attekat yi ci biir bani Israël yàlla sunu boroom indil ñu jamono jooju ngir yedduñu mooy ni ñuy wax ci tubaab juge mooy attekat yi wante yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax ci jamonoy attekat yi ci téere bi ñu dippee attekat yi ci aaya fukk ak juróom-ñaar ci saar juróom-benn ba ci aaye ñaar fukk ak benn ci saar ñaar fukk ak juróom yàllaa ngi ñuy wax naan jamono jooju ku nekk ngi def li la neex nee na jamono jooju ku nekk ngi def li la neex nee na jamono jooju nit ñaa ngi topp seen bakkan ku nekk di def li la neex nee na bi loolu amee bu ñu xoolee ci téere boobu di attekat yi yàlla dañu wax naan moom yàlla mere na woon askan bi mere na woon banni Israël mere boo xam ne daf ñuy jàngal ci loolu nga xam ne banni Israël mi ngi ko doon dund mu jël leen jébbal leen seeni noon noonu la ko yàlla defee nee na ku nekk a ngi doon topp di def li la neex yàlla mere leen mu jël leen jébbal leen seeni noon ba mënatuñu am dara ba mënatuñu dékki seeni noon loolu la yàlla def nee na bi nga xamee ne nit ñi ku ci nekk yaa ngi def li la neex yàlla daf leen jël jébbal leen seeni noon ba mënatuñu dékku seeni noon yàlla jël xeet yooyu nga xam ne ay noonu bani Israël lañu woon mu samp leen seeni kanam kàttanal leen may leen xam-xam may leen doole ñu nekk nattu ci kanamu bani Israël bi nit ñi demee ba nga xam ne ñoom ñi nga xam ne yàlla jàngaloon na leen wan na leen fan la ñu war a teg seeni tànk bi ñu demee ba nga xam ne dëdd nañu yàlla ku ci nekk di def li la neex yàlla dafa ne xaaral ma wàccee nattu seen kaw nattu bi mooy lan mooy danaa kàttanal seeni noon danaa leen may doole ñu ñëw taxaw ci seen kanam ba duñ leen mën a dékku yàlla dañuy wax naan dañ daan bay bu ñu demee ba war a góob noon yi ñëw taal tool yépp ba duñu am lu ñu lekk rey jur gi yépp jël leen def leen jaam yàlla wàccee nattu yooyu lu ko waraloon mooy ku ci nekk danga doon def li la neex di def lu naqari yàlla yàlla ne dama leen mere kon bu ñu toogee jamono ba nga xam ne jamonoy nooyin dellusi na waat maanaam ci jëf ci xalaat mooy xel yi saa yu nekk di xent lu bon nit ñi di saa yu nekk di jëf lu bon donte nag ñi ngi tudd yàlla ci seen làmmiñ yàlla nee na dama leen di mere te damay tàmbali di wàccee ay nattu ci seen kaw nattu yooyu nag dama koy wàccee seen kaw ndax dama leen mere ndaxte dañ ma dëddu ku ci nekk yaa ngi def li la neex yàlla jàngal ñu foofu te nee na téereem bu sell bi lii mu ñu ci wax daf ñu ko wax ngir yedd ñu ngir jubbanti ñu te yàlla da doon wàccee ay nattu ci kaw bani Israël ngir jubbanti leen ngir jubbanti leen lool di lan di yërmande yàlla yàlla ne li ma namm ci sama jaam yi ma sàkk du dama di leen alak wante dama bëgg ñu texe moo tax yàlla doon wàccee ay nattu ci jamono yooyu jamono attekat yi mere woon nit ñi wàccee ay nattu ngir lan ngir jubbanti leen jamonoy nooyin nag li yàlla def mooy dafa boom àdduna sépp léegi nag yàlla day wàccee ay nattu ci kaw jaamam yi ngir jubbanti leen ngir jàngal leen ngir xëccaat leen ci boppam te téere bu sell bi dañuy wax naan bu nattu yi daan tar ba tar ba tar bani Israël dañuy tàmbali di tuub di dellu siwaat ci yàlla bu ñu dellu siwaatee ci yàlla yàlla yëkkati nit koo xam ne dana dana ñëw aar leen doon seen kilifa doon seen njiit dimbale leen aar leen ba nga xam ne noonu lañ leen sori wante saa suñu dummoo yooyu yàlla rek saa suñu nekkee ci li leen neex rek saa su ku nekk di def li la neex rek yàlla day wàcce am nattu day gën a may kàttan noon yi noon yi ñëw song leen sonal leen wàcce tiis bu tar ci seen kaw bu ñu tuubee yàlla sunu boroom yónni koo xam ne dana ñëw génne leen ci tiis boobu seydina isa almasi bi yeesu kirist naan la xewoon ca jamonoy nooyin dana xewaat tey ji àdduna neex na neexaay goo xam ne koo ne àdduna day tukki bés mun la déedéet loolu nekkul léegi ku nekk yaa ngi topp sa bakkan ba nga xam ne buñ ne la kat bés danañ la suul bés ay nit danañ la jël suul la da nga naan déedéet monte di firnde yaa ngi fi yàlla nee na ci moom la ñu jóge te ci moom la ñuy dellu yàlla nee na ci moom la ñu jóge te ci moom la ñuy dellu mu nañu nag ngalla li daloon jamonoy nooyin bu mu leen dalaat delloo si leen xel yi ndaxte kat bis ba may tukkal àddina da leeni bett seydina isa almasi bi yeesu kirist ne danaa dellu siwaat te dellu seem boobu day bette ànd ak mujjug jamono nee na bët bu nekk dana ko gis làmmiñ bu nekk tudd ko oom bu nekk sukk ci kanamam yàlla sunu boroom ne ñu la xawoon ca bésub nooyin dana xewaat ñi ngi jël ay soxna di maye sunuy doom di tabax ay kër di tukki di lekk di naan bu ñu feebaree faju yàlla ne waaw loolu lépp am na wante xam leen ne kat am na bis boo xam ne man dogal naa ko yàgg na bis boobu ci lay tukkal àdduna te bis boobu dana yegg si te day bette yàlla sunu boroom dañuy wax ci téereem bu sell bi ci kóllëre gu bees gi ci xaaj ñaareelu xaaj bi ñu jagleel timote ci aaya ñett ci saar benn ba saar juróom-ñeent nee na na ngeen xam lii ba su tiis yu tar ñu ngi ñuy teeru ci mujju jamono ba su tiis yu tar yu tar mi ñuy teeru ci mujjug jamono nee na ndaxte nit ñi danañu siis te fonk xaalis danañ jël xaalis def ko yàlla mu gënal leen lu nekk am am mu gënal leen lu nekk danañ jël xaalis am am def ko yàlla mu gënal leen yàlla mu gënal leen waajur mu gënal leen lu nekk jaral leen lu nekk yàlla ne ndaxte nit ñi danañu siis te fonk xaalis danañu rëy te yëg seen bopp te loolu lu am la ci yax bu rëy laa bokk man kat maay diw sàngam na xamuloo ma ci yax bu rëy laa bokk yàlla ne waaw loolu nekk na firnde yii wane na kat ñi ngi ci mujjug jamono bu nit ñi demee ba nga xam ne dañuy rëy yëg seen bopp bu ñu xoolee sunu réew xool bitim réew nañu wax sax ci Sénégal bi nga xam ne mooy sunu réew fii lañu xam ndaxte balaa ngay bale ci buntu kër nga bale sa buntu kër ba pare fii ci Sénégal fonk sa bopp fëgg sa dënn ci yax bu rëy laa bokk nee na loolu nekk na firnde yi wane ne ñi ngi ci mujjug jamono toll nañu jamono joo xam ne ku nekk a ngi xeex ngir am tur ku nekk a ngi xeex ngir ñu tagg la ku nekk ngi def sa kémtalaayu kàttan ngir ñu lay woy mu jaral la nag lu nekk nee na danañ yëg seen bopp nee na ñuy xaste tey xeeb ndigaale waajur xaste bu ñu xoolee Sénégal li fi ëpp tey jii mooy xaste yenn saa yi sax nga dégg xaste foo xam ne yaakaaruloo woon ne ñooñu danañ xastante seen diggante da ngay dégg ay nit ñoo xam ne yisuloo yaakaar ne ñii kat danañ dem bay xastante seen diggante kon boo gisee lool rek nga xam ne ñi ngi ci mujjug jamono nit ñoo xam ne musuloo ko yaakaar ñu dem ba nga xam ne ñi ngi xastante seen diir nga xam ne que ah kon de am na luy xew mujjug jamono la ñu nekk nee na dañuy xeeb digaale waajur tey jii kenn fonkul li waajur di wax ñeneen ak leneen lañuy fonk wante lu waajur wax ñu jël sànni fële waajur moom waxam amatul benn solo waajur waxam peeseetul dara nee na duñu am kóllëre mu jug jamono nee na loolu firnde la buy am nit ñi duñu am kóllëre ñu xool ne Sénégal fii kóllëre amatu fi kóllëre amatul Sénégal waxuma la nag ci biir àdduna kóllëre fàtte nañu mooy lan boo nekkee ak nay nit tey bu ëllëgee nga bàyyi ko nekk ak keneen nga ànd ak nit mu lay jox teraanga yàlla def kat teraanga boobu mënatuloo ko jox nga sànni ko fële dem ànd ak keneen wut say lay nang naan lii kat ak lëlee kat lii kat ak lëlee kat lii kat ak lëlee kat ànd ak ki nga xam ne tey jii mën na la jox teraanga nga ne kooku moo nekk tàmbali di ko way tàmbali di ko tagg tàmbali nekk ak moom li nekkoon li nga waxoon démb yépp nga gas bu mu xóot suul ku la ko fàttali sax nga ne noonu la ku la ko fàttali sax nga ne noonu la wut say lay nang ki la daan jox teraanga démb nga fàtte ko ki la daan jox teraanga démb nga tàmbali di ko xas ki nga xam ne démb moo la daan jox boo amee tur moom la woon yàlla nee na déedéet bugguma loolu da leen am kóllëre mais nee na nag mu jug jamono loolu boo leen ko gisee da ngeen di xam ne lépp jeex na nit ñi dootuñu am benn benn benn kóllëre te bu ñu xoolee sunu Sénégal bii ñu nekk kóllëre amatu fi ku la may tey ëllëg bu la mayul nga xas ko ku la jox ndombal tànk tey ëllëg bu la ko mënatul jox nga dummóoyu ko xas ko waaw loolu la ñu gis Sénégal loolu la ñuy gis Sénégal te yenn saa yi sax ñu koy déggee foo xam ne ci dëgg-dëgg xalaatuñu woon ne ñu mel noonu danañ wax loolu wala boog danañ jëf-jëf yu mel noonu kon yàlla nañu yàlla may kóllëre yàlla na ñuy sàmm kóllëre yàlla na ñuy sàmm sunu diggante ki la defal démb bul ko fàtte mukk foo toll dee ko wax bul ko xeex bul ko dummóoyu yàlla sunu borom ne loolu mooy mujjub jamono bañ a déggal ay waajur nee na seen bànneex moo leen di gënal yàlla dañuy mbubboo diine waaye nanguwuñ ko def ci seen xol sunu bànneex dañuy gënal yàlla yàlla nañu yàlla gënal lépp yàlla nañu yàlla gën a lépp te yàlla nañuy bàyyi xel ne kat àdduna sii mu nekk sii ñu nekk ëllëg day jeex te ci yàlla la ñu jóge ci yàlla la ñuy dellu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ nee na bu leen fàtte ne bésub nooyin dana dellu siwaat yàlla nañu bokk ci ñi am dégg-dégg ñi nga xam ne kat dana nangu ñu yedd leen jubbanti leen yee leen ba nga xam ne li daloon jamonoy nooyin du ñu dal ñu dellu ci yàlla sunu boroom kon mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell bi di ñaan yàlla sunu borom mu barkal askanu Sénégal ba ñu xamee ñu ne askan bu gëm yàlla lañu askan bu déggal yàlla lañu askan goo xam ne ñi ngi jaamu yàlla nañ ko war a jaamoo te yàllaa ngi ci sunu xol yàlla na jàmm sax ci biir Sénégal yàlla na yàlla sunu borom tàppe xol yi ba mbokkoo gi dëgër ma leen di fàttali sunu numéro de téléphone di 77 0 74 35 35 wasalaam
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.
إن